coow lu rëy dox ci diggante ñenn ci njabootu Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre ak taskatu xibaar bii di El Hadj El Modou Gueye ay plainte jot a jip 3CM di kuréel gu nga xam ne kon dafa lëkkale correspondant de presse diggante tubaak ak demoon seeti porte parole du khalife général des Mourides waxtaan ba jàmm mujj cee juddu. sama wax ñëpp yi dégg leen lépp lu ma a def jéggal na lu ko loolu moom falaa ci ne ba nëgëriñ te di ci sant yàlla muy loo xam ne. du lu mu wax ci sama làmmiñ rek waaye sama xol du ko gëm amul kenn lu may jàpp nit ab jullit fas ma ko yéen incha allah maa ngi ñaan yàlla suñu borom di ma gën a dimbale waxtu wu ne itam nii muy mel ci sama xol nga xam ne dara lu ci diis ci man amut yàlla ma yàlla dimbale ak Sëriñ Tuubaa ba may sax foofu bu faw ndax euh, Sëriñ Tuubaa dafa wax ne wa ahbibil muumina lil imaani wa tubxidil kaafira lil kufraani jullit bi na koy sopp ndax bokk ñaar bokk lislaam waaye yéefar bii na koy bañ ngir wedd gi wedd yàlla kon ñoon foofu rek lañ fa see nekk te sëriñ Abdul Ahad Mbàkke dafa waxoon ne sëriñ Tuubaa ba mu bàyyi ko ca bu tedd ba dafa waxoon ne jéggal naa sama noonu yëpp na ay noonu yëpp mu teg ca ne sëriñ Tuubaa kon du ku ñuy xuloo du ku ñuy xeexal ku ñu topp la ku ñu yaakaar la ku ñu wóolu la foofee rek fa lañ fas yéene tënku te duñ ko wàcc ba faw ndax sëriñ bi dafa jéggal ay noonu di fàttali fàttaliwaat itam suñu kilifa gu baax ga sëriñ Saliou Mbacké yaari mbir yu ma ci fàttali benn bi am na ay coow yu fi amoon ba coow yu bare mu yëkkati ci kàddoom wax nañ ñëpp ànd ko dal di jéggal naa leen ba ñooy defee délégation ñëw ci moom it da leen waxoon ne leen yaar yëf di dama leen ko bàyyi loo xel mooy ab taalibi buñ too tooñee ab sëriñam buy fayu du tàggoo mooy benn ba ca sit mooy leen nag mañ sama jëm bopp de ci sama xol jéggal naa leen waaye nag topp murit yëpp nag kenn ku ci ne ma wax la ne wax ja nga déggoo mu naqari la na a neexaat loolu moom du ma def loolu ñu ko Serigne Saliou wax moom laa tudd seen tur waaye kon danaa yëfi ne ndax ñi ngi dund da ko jiitoon moom mi ngi dund ku jiitoon lu bari ci lislaam ji ci Sénégal ñëpp xam nañ ko kon loolu rek laay fàttali di xamle rek na fa ma nekkoon rek falaa ci ne du ma ci soppi ko mukk ba ca desit mooy eh, xikma bi Serigne Saliou ma sa wax mu dégg ko falaa ca falaa fa séeni ne daa waxoon ne waxi journal jërut tontu ndax nee na coowul ñett fan rek la daana buñ la waxalee nga weddi bu ëllëgee bu ñu waxaatee da nga weddiwaat boo weddee lii bàyyi lii nag bu ëllëgee la nga weddi ak la nga weddu yaa saxal la ci des loolu itam du ma ci soppiku ba àddina tukki yàlla def na itam maa ngi yàlla di ci sant Sëñ Tuubaa dara lu diis ci sama xol wala lu ci mën a jeexital amut ndax damay xam ne la Serigne Touba waxoon rek ba wootee ci njaareem ne ndax ñëpp ndax ndax ñëpp ñëw nañ ñu ne ko ñëpp ñëw suñu Malick Ndiaye moo ko ne Mbàkke ñëpp ñëw nañ sëriñ bi ne ko woote ñëpp woote ak dëgg ñëpp wuy si la ci yàlla may ko kenn. muy rasul la du ko may kenn. kon nag ñun itam damay jàpp ne lu yàlla mi bind ñëpp amut rasulullahi mi tax mu bind ñëpp amu ko Serigne Touba mi suñu yaakaar ak àllaaxira amu ko. jërëjëf di jéem a séntu suñ kilifa yu baax yi itam lu ne dégg nañ ko mm-hmm. maa yuqaalu laka illaa maa xad xiila li rusul min xablika loolu suñ borom waxoon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam liñ lay wax mooy li ñuy wax yonent yi jëkk man mi itam kon noonu rek laa ko jàpp luñ ma wax rek lu ko gën a metti foofu wax nañ ko sama kilifa ñu muñ ko ngir yàlla xam ne liggéey bi ko laaj kon loolu moom foofu laa laa dañ ciy leeral te fas yéene ko yéene wàcc bu di wax ne jàmm daa am lu koy indi li ko mën a indi mooy ku ne warmaal sa morom respecté sa ndax respect bu amul ci mbir li ñuy wax fawda fawda mooy anarchie moom la mën a jur ndax nit ñi itam danañ muñ waaye buñ muñee ba seen muñukaay fees la ñuy def kenn mënu ko contrôler moo tax loolu itam ñëpp war nañ cee bàyyi xel bo loolu du njariñul kenn ndax jàmm bu amul cim réew kenn du sale jaamu yàlla kenn du sale liggéey kenn du sale def dara te wax daa mën a yàq mën a defar mën a yàq kon nag la ma waxoon lépp lu jëm ci Serigne Touba ma xam ne yoon wee tax loolu moom awuma ci maslaa awuma ci xarit awuma ci la bu dee sama mbirum bopp la moom awuma ci soxla waaye nag lu jëm ci Serigne Touba ndax looloo tax ñu teg ma fi si Serigne Abdoulaye Mbacke daa waxoon ne kuñ jox jaasir dañ laa gorloo kuñ jox xepp dañ laa dogloo kuñ jox baat dañ laa waxloo kon fii ma nekk li ma ci amal solo mooy di seereel yàlla ak Sëriñ Tuubaa bi tax ak ki fi nekk Sëriñ Tuubaa te dénk ma liggéey bi loolu nag ragaluma ku ma ci xas bëgguma ku ma ci tagg ndax aw tagg ak ko xas amul njëriñ ndax bu dee ñëpp ma ci tagg la te yow mu wóoree la ngay wax li ñuy wax ci yow du dëgg waaye nit ña koy dégg te amee xel xam ne du dëgg loolu amul solo bu ñëpp ma asoon ci la sikkal itam te lañ lay sikkal ñi xam xam ne amul amul solo. te man yàlla damaa defal feex damaa noppalu ci loolu ndax wax yi ñuy wax sax déglu ko dañ ma ko nettali bëgguma ko dégg te lu mel ni mooy bëgguma ko déglu boo ko dégloo rek mën naa jeexital ci yow te amul njëriñ eh, bu amee lu cay metti ci man weesuut yaari yëf du sama ak yebeel ci biir yoon di ci bëgg a tàbbi kenn nit ku taxaw fee rek te xam ne sëriñ Touba li ak ci ay millions nit ñoo ko yaakaar. ngay bëgg a dem posteefu taalib nga mel ne koo xam ne yaakaar gi ni ñu yaakaar Sëriñ Tuubaa wala ñu ko topp da neexut mm-hmm. loolu ku yaakaar Sëriñ Tuubaa mu naqaral du sama jëmm mm-hmm. waaye nam koy def dañ koy defee ci ñeneen kilifa yi ci yoon wi di ko defee ci biir dëkk foo ci dégg loolaa ma gën naqari ci li jëm ci man man bu dee woon mën naa ko wuñ sëriñ Bass Abdou Khadre Mbacké di leeral ne kon li ñeel jëmmam ji amul lenn lum ci toppante waaye nag faaw rek kenn ku ne bàyyi xel pas-pasu doomu aadama yi rawati fii nga xam ne moom mooy Touba. waaye nag nañ xam ne mbirum Sëriñ Tuubaa du lu ñuy foyee du lu ñuy caaxaane ndax koo xam ne wóor la ne waxuma la muy jéem a indi fitna waaye bu ci bu ca wanee woon aw naqari képp sa bakkan mën na ko bañ a fekke te loolu da yàqum réew ndax am réew siwil du fajal boppam siwil du du boppam waaye nag looy itam loo ko mën a indi mooy lépp day tegu ci yoon waaye bu fekkee bu nit waxee wax ju rafetul ñu ñu ñu ñu nëpp nëppal ko. loolu tam bu yàggee kenn du xam fu muy jur moo tax ki nekku ci dëgg dañ koy wax ne ko yaa néew ci dëgg moo tax unzur axaaka zaliman aw masluman sa mbokk boo koy dimbale bu tooñee danga koy wax ne ko yaa tooñ waaye ak tooñ gu gu amut ab amut fenn fu mu tàmbali amut fu mu yem bu yàggee tam mën naa dem ba jur loo xam kenn bëgg ko kon loolu laa ci fàttali te ñoom lañ doon wax waxal seen bopp euh, waxuñ ko waxee waxee nu teggin ndax bu fekkonte ne. ndax xurriyatu biir mooy li nga xam ne àdduna ko andi léegi donte dëpp wutal lislaam mooy ku ne wax sa xalaat bañaluñ leen ko ndax loolu àddunaa ko andi te dañoo ne ci biir àdduna waaye bu ñu booy bu ñuy wax xurriyatu biir mooy sañ a wax sa xalaat yi da wax le dëgg waaye bu toog fa nga toog rek seet la jub ci sam xel wala ñu neexal la ci xaalis wala nga bëgg santaas nit tax ngay taxaw ci rajo di wax la neex loolu moom kenn mënu ci kenn te man yàlla damaa dimbale ku taxaw fee yaakaar ne danga may santas ba addunay tukki duma ma la ci wuyu. man ci ngor ak lu baax laa man andi waaye santas du ci andi nit ndax loolu kenn mënu ko. Euh, Serigne Saliou Mbacké daa wax ne daa daa wax ne nit ñi seenoo tagg kenn mënu ko ndax nee na doomu adama kenn mënu koo jënd ndax nee saa soo ko jëndee bu njëggee jeexee mu moomaat boppam kon nit ñi kuy ànd ak ñoom ci jikko ngay ànd ñoom man nag loolu mooy sama doxin mooy sama ngëm-ngëm. kon nag loolu laa amoon ci lu ma ci leeral kon li ci am solo mooy nañ xam ne lii du sama mbir man sama jëm bopp jéggal naa leen jeexal naa ko it waaye du lii ndax lii amul solo waaye la am solo mooy ñoom ñi dëkk ci dëkk bi nañ xool ni ñu nekk ci dëkk bi te xam ne ñoom itam cër bu leen keneen jox ndax ñi ci ëpp ko am na ci ñoom du ñu te nit ñi xam nañ ko ña ci doon journaliste am na ci ñoom seen njàng soriwut kon cër bu ñu am dëkk yi dëkk Tuubaa leen ko may waaye nag waruñoo jël dëkk yi dëkk Touba nag jël ko di ko tooge ci kaw nit ñi wala ñu koy yàq dëkk bi loolu moom waa Touba dañ cee war a am fulla nag ndax euh, buñ leen joxee cër ngir Sëriñ Touba ndax ñun muy journaliste ku du journaliste ñëpp lañ jox àq ndax suñu borom moo wax ne wala xat karam naa bani aadama damaa teral doomu aadama waraay fii kulli xalqin xaq man xalqa del sàmmonteeg àqi mbindeef yëpp ci képp ku yàlla bi bind kon ñun duñ toroxal kenn duñ jànn kenn kenn si dégg ma toroxa ni sama biir kër sa sama ma toroxa ni ci biti loolu du sama defin waaye nag bu ma amee lu ma war a leer la mu aji ci yoonu mur yëpp loola seetuma ci lu neex nit wala lu naqari nit kon loola la ma ci waxoon démb amu ci lu may soppiwaat kama ko waxoon itam na ma ko waxee woon jotewuñ dara yéenewu ma ko dara loolu lu baax waaye nag bu defee lu jaaduwut loo xam ne ñëpp xam nañ di jaaduwut tam daa jaadu ci ma leer ko te ngeen xam ne yamay ca teg sama tànk mu ëpp ndax ma lu may lijjanti ci biir du ma ko wax ci rajo du ma ko wax ci biti soxlu ma kenn di ko xam ndax looloo ma fi bàyyi te yàlla laa koy seeral ak Sëriñ Tuubaa te doo ne doo ne sëkk seere ci loola ak boroom liggéey bi di ki fi nekk Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha ñuy ñaan mu yàgg fii te ànd ak wér kon nag yéen itam ngeen xamee ko noonu xam ne ku am taw tawféex dëkk ci biir dëkk bi ñëpp di la warmaan ngir Sëriñ Tuubaa itam. war ngaa sàmmante loolu te xam ne boo ko defut kat mën ngaa dem bala nga amoon nga ñàkk ko te eh, maam Cheikh Ibrahima Fall waxoon na ne yoon wi sëriñ bi ñag na ko ba dara mënta jóge ci biti di ko yàq waaye la koy róor ci biir la juddoo kon waxtu ne may fàttali it la sëriñ bi waxoon ma Masamba ne ko seytaan bi dikk na ci man xamal ma ne fu ne jaar naa fa waaye amul fenn fu ma la mën a jaar waaye dama ne naa jaxase leen na ci sama mbooloo ak leen na ci sama mbooloo ba jaxase leen ba kenn leen mën tàggale kon nag ku jug di jëf ci yoonu Sëñ Tuubaa war ngaa bàyyi xel ba xam mel nga ni Sëñ Tuubaa bëgg ab taalibe mel ni bu fekkente ne natt nga sa bopp te xam ne nii nga mel kat eh, melu saytaan la wala ku yàq ci biir yoon war ngaa xoolal sa bopp te xam ne tàbbi nga ci biir wax ja te Sëñ Tuubaa ko koy yaakaar nag adduna ak alaaxira tax kon nag loolu moom maa ngi koy fàttali ñëpp ñu gën a góor góorlu gën a soppi doxin yi te bàyyi xel ci la leen Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon euh, ci ñu wax ko fi léegi mooy tuuma topp na leen. tuuma topp na leen ji nag mooy waa dëkk bépp ko jàmbat man tey laajte ma su wax te bëgguma ci woon wax sax li ngeen fi ñëw tax di jéggalu loolu moom suñu maa ñàkk a jéggale sax ndax euh, ku bokk Sëriñ Tuubaa ku ne. waroo jéem a toppante nit waroo koo jéggee ci sa làmmiñ sax tam ne ci biir xol da koy jéggee ci sa làmmiñ jébbal ko ci biir xol waaye teewul loolu lépp itam ay nit bu ñuy ànd bu ñuy ànd dañuy ànd ci dëgg man ku may àndal ku ne ci dëgg laay mën ànd yow li may mën a ànd ci mooy jukki ju baax ak makaari axlaq boo ko xamee baax na ndax man yàlla maa ngi sant yàlla bu baax di sant Sëriñ Tuubaa waaye ku ma xas ku ma tagg male li ma amal solo daal mooy te di ko ñaan mooy ndimbalu yàlla ak ngërëmu Sëriñ Tuubaa la jeex nag bu umpee nit ñi sax amul solo ndax yàgg-yàgg yàlla dana commencé leer bu ko leerul ci àdduna it ak xamam doy na sëkk kon ñu ngi leen sant bu baax ñaan yàlla def tafeex tawfeex def jàmm gindi xel yi gindi xol yi ba rëcc rëcc yëpp bañ a amate ci barke sëriñ bi asalaamaaleykum wa